ziar Serigne Ndiaye Boy Faye Boy Faye seen tur rouge Serigne Ndiaye te roog a fiyanga dollar ke mbeñ felanga korñimandonge Lamine Bandiouly a yaawel Serigne Ndiaye Boy Faye Serigne Ndiaye Boy Faye Moussa Fat Boy Faye dañoo Boy Faye

Sandiate war na ko ndombo Boy Faye eh arbitre daanuwul de Moussa Ndiaffate daan na Boy Faye loolu arbitre wax Moussa Ndiaffate daan na ko loolu arbitre wax Serigne Ndiaye nee na affaire yi moom la mbokk yi région de Fatick képp ka nga xamante ni siin siin nga fatiku nga dretu sid mo ngi daw sa bir yaram ñoo ngi lay wol le 14 mai bir fatik si assemblée générale wu école de lutte les ressortissants de fatik bi nga xamanteni tay écurie séréer yu bari ak écurie yi fatik ak bir nakaru bolodon don ben bëgg taxawal yëkëti lambi fatik ba taxna ñong ci wo amateur yi di ci wo mbër yi di ci wo ñi safo lamb te xamne dafa jot tay lamb fatik taxaw ñew Dakar jël si limu mom di wax ni kep ka nga xamanteni ni nga na nga duggal ci sa loxo ci li ñuy sos pour tay ñuy mëna joggé di ñew Dakar di ñëw jël si fi roi des arènes di ñëw jël si fi ay médailles olympiques di ñëw di fi jël si lutte simple yi di ko dellowaat suñu biir région Fatick ñàkkul mbër Fatick ñàkkul encadrement Fatick ñàkkul ñu mën làmb ak ñu bëgg làmb mais Fatick li mu ñàkkoon mooy xale yi fu ñuy dajaloo di entraîner ak encadrement bu leen di jëlee biir Fatick di leen indi Dakar ñuy bëri si ñongi wo tay autorité fatigue yépp wax leen ni que muy ñi nekk ci pouvoir que muy ñi nekk ci opposition ñu xamni li du yeufi politique yeufi Fatick la ñu bolo ñom ñëpp jappalé xalé yi pour li nga xamanteni ni lañ safo di lamb yalla mën leen sé dimbali ba ñu mën sé tekki tela sisen wajur di wax ni ñëpp ñi nga xamanteni ni nañ sportu fatigue si bés bobu bëgg nañ la see décorer ancien gloire yi newoon biir Fatick te yëkkati làmb Fatick bëgg nañ leen décorer bëgg nañ aussi waxtaan ak nit ñi pour xool nu ñuy defaree làmbi Fatick ba nga xamante ni au plan national ak international incha allahu Fatick dina mën a dem si kasam asalaamaaleykum wa rahmatullaahu taala wa barakaatu.